salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñuy suivre ci Leewtoo TV tey nag dafa am fu ma nekk parce que ma doon doxantu ñëw ba ci sama buntu kër benn waay ma ne xaaral ma jaar fi seet ko du ma la wax turam nag loolu damaa dugg ci kër ngeen gisal ko seen bopp ñaari micro laa yor parce que su ma demee damay jël micro jox ko micro loolu mooy affaire bi ma àndoon ak yàgg maar du mën a ñàkk yàgg kaay ñu dugg noonu lay demee waaw fii daal defe naa ne ki may seet moom bu soobee yàlla naa ko fekk quoi incha allahu rabbi maar daa mel ni fi may dégg ay wax nii est-ce que du ki may seet fii la ne waaw waaw waaw maar <laughs> yàgg problème am na yàgg ki ma doon seet la Youssou Ndour noonu ki ma doon seet gis naa ko yow laa doon seet gis naa la sax la waxoon ca way wa waa Lirou Diane moom kon moom lii la bëgg a nee ci réew mi jóge Amérique di wër di lekk yàpp fii de du këram ndax man Saliou Khoule mais laa doon wër fii du sa kër waay lu ko def sa yow nag leerul yow yow nag kon li nga fi nekke man may seet yow nag yaa ngi toog fii. Babacar non Babacar may boole yow Babacar su ma xamoon ni da nga fi ñëw man du ma fi ñëw. man de man fii sama kër la kii sa waay yow yow yow yow. man du sama kër. kii sama xarit la. loolu xanaa lu bees la. ba noppi mu jeex muy Balla Gaye 2 mu sama xarit ah mu invité ma tey këram. ma ñëw mu dem ak taal. yow saytaane ma yàq sa saytaane lu ma lu ma def seytaane billahi baaru nga saytaane. waaw li nga xam damaa jóge amee di rek. Ah, fii laa la fekk. waaw alhamdulilah kii moo koy ci sama mu waay sama rakk waaye ah, mais loolu dimbali ma kenn ñëwoon rek day añ ta bàyyi wax bi. baaba yow baaba foog ma teeroo la. non non na solo Sall. baaba. Saliou euh, mais Saliou li li réew mu ne ci réew mi itam. yàgg tamit foog ma teeroo ko yàgg am fii ñëppay barkeelu yàgg. yàgg sama xarit. mais Baba yow laa doon seet ñëw fekk fi kii mu toog. mais Baba yow sax nag maa bett ndax. Ah, ndax ah, munoon nga bàyyi munoon nga bàyyi ba ñu xéwalu ba noppi. Ah, ndax xam naa ne liiru moom. fu mu ne nii maa ni affaire da koo xëy na. maa mel ni affaire da koo xëy na. maa mel ni affaire da yaamu jàmbur miin naa waaw. miin na ndaw laa ilaaha illallaah yaamu jàmbur. Hmm. dama koo miinu. dama koo xam te xam nga nag Paco Wane kenn du moom daa xew. Ah, Paco Wane. moo nekk fi wetu comptoir. Hmm. moo nekk. wetu comptoir Liberté 6. Liberté Liberté 6 moom Paco Wane moom mën ci àddina. Hmm. numéro 76. 648. 92. 44. Paco Wane lakk na daay gi. non Paco Wane moo Sénégal man maa la ko wax Paco Wane moom moo Sénégal. dina ma jàll li dina jàll dama jógee ci Guédiawaye. waaw ba waaw waaw. waaw Guédiawaye am nay dibiteri yow. am nay waaye Paco Wane kenn du Paco Wane. mais dafa nooy. lii lu dimbali ma. li may wax sa seytaan nga am bàyyil ah, xewal kon man damay xewal. parce que kii. man man daal ma jàmm ngay am ah. borom daaru nga yaakaar te sama rakk sama xarit nga bëgg sama rakk ni muy Balla Gaye 2 Saliou yow taalibe nga borom daaru nga yaakaar ay Saliou xule ndaanaan la et puis teraanga la xam man loolu dama neex ma barke Serigne Bamba et puis taalibe mu woo ma invité ma damay waaye yow su ma ñëw kii ba ma nekkee Amérique sax damaa diggante ak moom guddeeg bëccëg mu nekk ci côté bi di ma may délicace rek dafa neex su ma ñëwee te ñëw ma fi. man baadoola laa. Babacar da laa bëgg a mm. sa kër la. waaw saytaana la saytaana daf ñoo bëgg a saytaana. xam nga ko nga nga. Ah, saytaana nga dimbali ma yàq sa rakk ji. sama jàmbaar Lamine Lamine. xam nga Lamine yaboo Lamine. waaw yéen ñaara yem rek mu sën yéen seeñul mu ngi seeñu da yàgg ma. ma ñaari micro laa yoon dugg ñaari micro laa téewoon dugg ci kër gi yaa ngi dégg bi ma duggee tamit la ma fekkoon gis ngeen ko xéewal laa fekk mbër moo xam ne Amérique la jóge di wër. <laughs> nga de baax ah <laughs> loolu sacré géej ba sacré cœur. waaw. su ma amee sama soxla du ma ko doxee. sa digganteeg Saliou Khoulé Lirou Diane ginnaaw bu mu la nuyu ziar la. a njëkk. waaw waaw ginnaaw sa digganteeg Saliou Khoulé laa bëgg nga wax. Babacar maa lay delloo ziar. waaw de ziar. yàgg yàgg maar. Mm-hmm. Euh, nga ma xamal day gën a baax sa baat bi daa rafet. Ah, xam nga tey. Ah. soo may wax ci Saliou am mbégte damay am feer. da moom sa yoon nekku ci damay feer ci moom ndax amul tax. waaw ah. Saliou su ma naan suma rakk su dee benn fan maa ko magee. dëgg la mu bëgg sama rakk bala Gaye da hmm. bëgg ma man hmm. ma jàpp ko te man ko bëgg Balla Gaye 2 dama lay bëgg comprendre nga hmm. saa ma nekk Amérique di déggante moom bu dégg bëccëg ñuy déggante mu nekk ci royaume di ma may ay délicaces ñun ñi di taxaw may nekk foofu ñu di ma ko wax ok kon nag am naa droit su ma ñëwee ba sacré kër ma ñëw fii am naa droit ñëw seet si Saliou c'est mon ami c'est mon frère loolu la di tey rek ak leneen ak leneen taalibe borom daaru la waaw loolu moom am na. loolu moom taalibu borom daaru la. te saayu dafay yëngal jamono. ci nan. ci côté bu ne fànn bu ne. wax ñu Saliou soo demee ci télé bi émission boobu muy def noonu tubaarikàlla ñëpp koy suivre grand plateau bu muy def tubaarikàlla nga dem ci rajo bi chaque jour. 14 laa ilaha illallah ñëpp moom la ñuy déglu moom daal yàlla ko yàlla fa cat te nii la mun a mel te taalibe borom daaru la xam nga Saliou barki Cheikh Ahmadou Bamba li ma daan du question li mu toog jayuma ko man su deful woon leen xam nga du ma man melu ma noonu man dama direct man xam nañ ma non non non man li may def aw ma ci sentiment. non non dañuy waxtaan. man xew ma dama lay wax. Ah, damaa gis nga sànni xoolal caméra macha allah. ñi lay seetaan nag. Eh. ma ne moom laay waxal man xam nga Saliou lan moo ma neex ci moom. Ah. man su ma koy déglu damay am mbégte damay am feer. ndax tubaarkàlla macha allah dafa man la muy def. Mhm. te li muy def da koo tarbiyu. kan mooy sa mag xaadim xule. dijé pii cey ca Soxna FM ak. waaw kii maa ba ma koy déglu man boobu ma nga ca Soxna FM. ma di ko topp tey ba Zik FM. ba pare bëgg sama rakk ji Balla Gaye 2. ba pare bëgg ma man tamit sëñ Seydou Khoule di sa wéy jur. voilà laaj ko bay waajuram bu jigéen làqo dérangement laa def ñoo ba këram pour jaalase ko. Ah, mon ami mon frère may fàttali nag ne moom sama xarit sama doomu ndey la dama doon traversé ma ne xaaral gàllem la fii ma ne yàgg nañ fi jaar ñëw fekk mu demee nii parce que olof a ko wax yàgg maar xerewu sàkket da cay daru te ku la safooti faale ko man Babacar noonu laa mel te ku ne yëngi dégg Saliou Khoulé Babacar Saliou Khoulé Babacar te lépp ci moom la Saliou maa ngi lay bëggee dégg nga li liiru wax way aba euh, liiru moom ah aca benn bu la neexee rek damay bañ nga sonn ba ah Euh, Aba ndeysaan maa ngi lay fay di nuyu waa Leewtoo waa Leewtoo TV di nuyu nag sama mag ji nga xam ni moom euh, li mu wax yëpp ci moom la nekk muy liiru ba mu jógee Amérique yàggul xam naa ni amul sax amul benn temps mais nag euh, lii moom mbégte rek laa ci mën a am liiru mu jóge ba géejawaay koo xam ni ñëpp ko soxla mu bàyyi lépp ne tey sama rakk laay seet si Saliou Khoulé loolu mbégte mënu koo gën a rëy may nuyu sénégalais yëpp. fa laa waroon tàmbalee sax di nuyu sama sëriñ borom daaru nooree ni Balla sa di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér Mbacke Balla di nuyu ñoom soxna Ndikke euh, di nuyu sëñ Moustapha Xabsa ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu waa Daaru Muxti yëpp sëñ Abbas Xalif bi maa ngi nuyu ñëpp xam nga nag man Daaru Muxti laa bokk mhm. di nuyu Omar wax na ko léegi Omar Sakho ñoo bokk xarit Balla gay 2 moom nag mooy sama mbër mhm. waaw xam nga loolu di ko sañ wax bariwul mooy mbërëm moom maanaam Balla Balla mooy munoo munoo nekk ci média ba noppi sax di wax fi nga féete mais nag euh, yaa ko wax léegi ragal féete day xañ a wërsëg. dëgg la léegi nag man moom Omar moom sama xarit la sama mbër la waaw Omar ku muy bëreel Omar laay faral. waaw mais terewul loolu bu ñu ñu gis Saliou ay relation ak ñeneen di rafet te pourtant day wax ne Omar suma mbër la mën naa ci cité benn dama la gis ak Youssou Ndoye ngeen dégg sa ay voisins te ku ne xam ne mu Youssou Ndoye digganteem ak Modou Lo ba ba pare suuru takku magam. Mami Ndoye mu koy nuyu di ko saar kere gis naa la ci kër gi mu mel ni kon Saliou itam terewul loolu muy ànd ak Balla mu ngi sàmm relation ak ñeneen ñi ah mais Aba ah Sénégal nag euh, benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar mhm. dafa fekk ni fu waaye la bee rek foofu xóot ci yow mhm. waaye nag Youssou ñoo jàkkaarloo moom moo doy xaritam mhm. man Omar sama xarit bu may gaare muy gaare dañuy tooñante mu naan ma bu ma la jàppaatee ma ne ko yow daan naa la ñaari yoon <laughs> mu naan ma Moodu laa àndaloon léegi ma ne ko loolu mooy Sénégal loolu mooy Sénégal ndam li génnul Sénégal ndam li du génn Sénégal Balla xaritu Modou la moodu xaritu Balla la tàkku saana leen boole bu jeexee jeex na li may bind bu may tàmbali rajo rek bu jeexee jeex na waaw solo léegi ba tey Balla moom damay ñëw ci moom macha allah ak say daal Saliou man dinaa la laaj sa daal yi fan la jógee yii daal Seydina euh, Omar mu baax ni moo ma ko indil Angleterre waaw ñoom dañoo baax loolu dañuy dañ may dañ may dañ may jàppale ci lu bari ñoom Omar ak ñoom Cheikh ñoom ñëpp man daal li may sol yëpp man moom mën naa la ko. borom daaru bi dañ ma ko waaw mooy sama sëriñ nag bi daañu fàtte isa ma ci pencum boppam ba. Baye Cheikh Awa Balla Ousmane ak ay dara. waaw kenn du moom de ma nga si ko. rëy ñaari leer yi. waaw waaw zil xayaati borom junni taar yi borom géeju soxda di salmaab sitte waaw ku nekk ak nga yaakaar man nag daaru laa bee nag. Bamba ba muy tukki cernu la dénkoon daaru. te boobu mi nga am 30 te loolu xam nga ni yombul. boobu jàkkaarloog tubaab bi jafe na mu yónni ko ah doon rakkam sa ci moom rek waaw sëñ Touba nee na ànd man doy na waaye ànd ak Thierno ëpp na. borom Touba wax loolu nee na ànd man doy na waaye ànd ak Thierno ëpp na. loolu de lu doy waar la. yaakaar ku tedd ki ba noppi teg ci Thierno moom yaakaar yaakaar naa chance la. su ma la déggee moom màggal gi moom ndax Saliou nga koy pare sax muy géej gi am na ndox. non mais ñëpp ko. <laughs> waaw a dina euh, maanaam su ma su wax. lii la lii maanaam xew nii lii. lii kañ man. Euh, man damay ragal damay ragal ñiy seetaan sax euh, yaakaar ne ñun ñoo ko. wallahi la sim du programme. barke alxuraanu karim. Ah, billaahi wallaahi wa taalaahi pro benn programme mi lii daal du neen. lii daal ay kéemaan yàlla la. mbiru yàlla la non non non Babacar dañ waxante dëgg xam nga dafa am ay façon nit yoo xam xañ ne mën nañu am ñuy seetaan te ñu yaatal lu ñu programmé la billaahi wallaahi kan la ñuy waxtaane sëriñ Touba at borom daaru ci màggal gi waa ji ñëw te ko mooy alxuraan jeena mm. yaa ko wax mooy alxuraan lan laa la wax la naroon la bi nga naan ko kii ba xam màggal gi ma dóor ndax mel ni taalibu mel ni Saliou Khoule. Ah, waaw ñu tuddee la kan sëñ Saliou Mbacke. ngay taalibe borom daaru. ah, ah. yaakaar kan. Thierno. gis nga Aba Aba yaa ko wax léegi gis nga. Aba gis nga waaw ma siyaare. waaw siyaare nga Aba. Euh, màggal gi. du man kase ñëpp ko war a waaj. dëgg leer gaa yi gis nga alxuraan ji xam nga dañ ku ko ku koy téye war nga yorum jàpp. Mm-hmm. fekk na bi muy ñëw. jàpp nañ. ba gaa yi julli ba pare. looloo doy waar. xam nga màggal gi bu amul woon ñépp dem safara. dëgg la. loolu boo ko waxee nag day nuru lu rëy. Mm-hmm. màggal gi koo xam ne dañ ko exilé 33 ans. Mm-hmm. exil après exil pendant 33 ans ay pexe jóge ci noonu ànd ki noonu jëm ci noonu. Mm-hmm. moom donc moo jekku ay noonam ba noppi baal leen. dëgg la ku mës a jekku say noon jekkali nga leen. dëgg la Cheikhul Khadim rek moo ànd ak ay noonam. jekku leen. baal leen 33 ans. dëgg la foofu turan li lax daa turan li wàjj ximan. dëgg la mu ñibbi si jéggal ñëpp. waaw loolu xam nga ni màggal gi màggal gi. Mhm. jàmm ji. Mhm. màggal gi ko waral. xaw Saliou la foofu ma xamal la benn affaire. waaw gi. Mhm. billaahi wallaahi wa fi la corona bi jaare daw ba faw. yaa wax li maa la ko wax. waaw fi la corona bi ñun Serigne Touba lañu yaakaar dund dem dee dem. xam nga xam nga xam nga li sénégalais yi war a xam sax mooy euh, maanaam euh, koo xam ni tey imaginer rek bu dee sénégalais nga rek sa yaram war naa daw. Mm-hmm. koo xam ne 33 ans ñu jëlee la sa njaboot. Mm. yóbbu la exilé la. Mm. yóbbu nañ ko fu ne. Mm. coono yi mu daj gas nañ xab kàmb 30 dugal ci ku tedd ki. boole laag gaynde. Mm-hmm. boole laag nag. Mm-hmm. moo tax gis nga euh, gaynde bi bañ ko boolee ku tedd ki. ku tedd ki ko doon xont mburu ak tàndarma moo tax tey gaynde gis nga bala nga koo gis na ngay fay de boole nañ koog nag tamit nag mm-hmm. nag bi da doon jéem a mbëkk mm-hmm. tey màggal gi naga gën a sonn ci màggal billaahi dëgg la daaray jolof la pël yi tàmbalee di dàq di dóor mm. ba Touba foo romb jaasi ji foo romb ña ngay rendi nag yi ji nga yaakaar ni jeex na abaa jeexul de mu ndawal li jeexee ah. ñu jël der bi foor ko ay tabala punkal jàpp ko di ko dóor ba fajar tabala lañ koy foofu bilaay xam na ah. ay mbokkam bilaay <laughs> na am na solo macha allah gis nga de oh, macha allah kon daal Sénégal loolu moo lay wax ne Sénégal gi ñu ne jàmm la mm. dëkku diine la dëkku mag ñu baax la mm. yal nañu yàlla fayal suñu mag ñu baax ñi muy si Ahmadou Bamba maam Alaaji Malick maam ba ci suñu mbokku chrétien ku ci nekk rek waa li wax rek ku nekk fa nga labe rek mm. foofaa xóot te muy kàddu gu am solo yàgg maar boobu la seen Saliou la ko wax mais Saliou léegi damay ñëw balaa may dellu ci liiru jaan Saliou Khoule ak animation ko rajo. Mhm. Saliou Khoule mu mel ni léegi maanaam monde bi yëpp bu 14h jotee 17 du du nag dañ lay seete ay fleur mais lu sénégalais yi constat bu ñu def la marché yeeg fépp mhm. Mhm. Saliou Saliou macha allah qu'est-ce qu'il y xew. ah man de li ma jàpp nag man euh, sama mag xaadim dimbali na ma. ndax jàng naa ite comme ba master. dem naa ba master 2008 laa am bac demaat jàng 5 ans institut technique de commerce. Euh, fa laa génnee def marketing communication juróomi at xaw ma ni woon animateur lay nekk mais nag ku tedd ki moom xam na ne dugal na ci loxoom. Mm-hmm. waaw li ma wér te moom mooy moom moom doo mën sa boor mu tële booram. ku tedd ki da nga koy jox lépp rek. Mm-hmm. man moom euh, pour man ku tedd ki la. Mm-hmm. li coow di bari yëpp. pour man ku tedd ki la ak tamit euh, di góorgóorlu ci sama liggéey. ndax ñëw naa fekk ku nekk di ko defee ni nga ko sentiree. ku ne am nga koo doon toppandoo. may nuyu ñoom Pape Cheikh Diallo ñoom ñëpp. ginnaaw ma nuyoo sama mag xaadim ñooñu ñoo xàlli yoon bi mais ma ñëw xaadim wan ma moom ni mu ko daan defee ma topp ko ci ma xaadim rek mën naa la wax ñoo koy defee nii ñu koy defee ñun waaw ah, ñun boo ñu dégloo benn yoon sax da ngay xam ne am na benn différence waxuma ko pour teg sama bopp mais boo ma dégloo déglu keneen da ngay xam ne am na benn différence ñun noonu la ñuy saaw ne xëy na loolu xëy na particularité bi ma indi moo tax tey sénégalais yi euh, xamuñu ko woon daal ndax xam nga Soxna FM laa nekkoon def fa sept ans bi demee dem seetaan mondial bi ànd ak Mactar maa ngi koy nuyu jéeri ko li waa xam ci bu Mactar ba ñaaru Fatick ministre des sports ministre des sunu ministre ñun ñëpp sunu ministre kenn du moom kenn du Matar ba nit ku baax ak doomu ndey Mame Boye Diao ah ma dem ñu woo ma ma ñëw seen TV fi def naa fi juróom juróom benn at su ma juumul ma ñëw seen TV ma ñëw seen TV léegi nag xëy na ñoom xam nga Soxna FM rajo bi rajo yi amuñu doole mhm. rajo yooyu amuñu woon doole noonu ay Zig FM Zig FM moom doole Sénégal boo bëggee ñu dégg la da ngay dem Zig FM mhm. amaana fa ma nekkoon moo amul woon doole nag mais li may def fii laa daan def foofu dëgg la ma tukki ñu woo ma ma ñëw fii xëy na ñoom xamuñu lii nag mu bees si ñoom mu bees si ci ci Sénégalais yëpp waaw amul woon moo tax Sénégalais yi tamit nag bëgg ma ma leen koy delloo nag te te commencé gu ma de déedéet léegi fi may ñëw léegi ci par rapport sa digganteeg animateur nga waykat yi waali Seck yaa ko waali bu Saliou waxee ñu ne Saliou waali la faral mu ñu ci suñu ñëw Youssou Ndour la faral mu dem ci Pape Diouf maanaam kenn mun laa dàkk fenn bu ñu mujjee bërki dem dégg way wuré wi la Pape Diouf way ci yaay sa digganteeg waykat yi ah Pape ma koy sargal liiru tamit def na ci vidéo bu am solo mook Pape ànd nañ ci Pape daal nit ku baax la waali nit ku baax la Youssou Ndour nit ku baax la man ko way lu neex ma teg ko dëgg la faruma kenn ñëpp laa faral mhm. lii yëpp abaa day jeex gars yi ñoo koy garaawal ni Sidi Diop sama xarit la Tarba Mbaye sama xarit la. man ñoom ñëpp kenn fayu ma ci. Mhm. Bougane Gueye danay may fay. Mhm. Bougane Gueye. Mhm. moo may fay faru maag benn artiste. Bougane nga faral mbaadu. ñëpp samay xarit lañu. ñëpp ñëpp laa faral. ku way lu neex ma teg ko boo way lu neex nag man yebuma sénégalais yi <laughs> man bokk ma man bokk ma ci animateur yi nga xam ne ay naafeq lañ da nga ñëw jox ma xaalis ma teg ko wala man nekkuma ci yooyu. man bokkal. waaw man. Eh, waaw xam na kay. am na waaye am na animation yow nag lii mbër nga naw yow xam nga ci dara waaye jéem ba nga xam dara xam dañ leen mais ban ban xam nga lëm waaye lu la ci xam mbuxum ñëppay mbuxum dee xala yow yaay mbuxum non non waaye non non non xam dañ leen bàyyi sa tooñ yi non dañuy waxtaan lu ñuy waxtaan yow laa xal dama bëgg nit yow mën nga am ne ca làmb ji ba pare bo xam la ne ca biti am na fépp am na ci làmb ji am na ci mission yi am na fépp yow mbër ma tëri kon yow dañ lay bokkal wala may bokkal man dama animé est-ce que animé yaa am na lay animation waaye dama lay wax. doo def ay doo def ay vidéo anniversaire. dafa ñu di la fay. fay yow yaa yàlla maa ngi fay samay. bokkaluñ la Babacar yow laa yaxal eh, yow. Saliou ah. Saliou. na dëgg billaahi wallaahi taala ma xamal la a raison am na fi animateur doo xam ministère dañuy génn seen single wala génn sama dem jox leen xaalis ñu doog ko teg. il a raison. te duñu woy dara. il a raison ay mbalit la. <laughs> non non du dañu waxante dëgg. a raison waaw na si ñoo xam ne dañ leen di bokkal ne ko tegal ma nga toog te li nga teg yëpp mbalit la dañuy waxtaan. non dañuy waxtaan la ci amee sooy wax da wax dëgg te yàlla tax man non non yow mii léeg-léeg la woon ne la kaay jël nit dañ lay waxante dëgg <laughs> léegi su fekkee def nga ko wala defoo ma ma ma déglu ma rek ay jël ma jox la dara. ma fay ma waxtaan waaw dañuy waxtaan. waaw dinaa la tontu. waaw man Babacar. waaw man Pape Thialis Faye may fay weer. voilà mbër bu may jël si dama lay jëli. voilà boo ma maye sa 1000 francs nag yow la. très bien waaw waaw duma duma waaye yow nag mbuxum nga wax. waaw non man nag mbuxum. ma ne la waxuma la da ngay mbuxum. dama ne la <laughs> léeg-léeg nit du la woo ne la Babacar kaay jël ma lii ma fay la. Ah. ma jox non dañuy waxtaan. nga am gan goo xam ne ni moom client. waaw na dëgg de da ngay gis ko xamul dara ñëw jox la son bi ne la teg ko. waaw ma ma yónnee la orange mo ne mbaa ma yónnee la Free Money mbaa mu yónnee la dara maa ngi lay yónnee xaalis sa compte te moom xam nañ li mu way neexul léegi nag yow ah, yow nga yow nga yi teg ko dem teg ko tey boo ko tegee sénégalais yi bu ñu paree yow la ñuy wax di ji bi xamoo dara te man li may def nii man man li may def nii man pour wax la dëgg man Euh, gis nga animation bu neexul ci yow rek du neex ci ñuy déglu. bu la ci ken neex. bu la ci kenn nax waaw bu la ci kenn ah, maanaam yow yow yaa war a a sentir neex neex bi waaw balaa moo neex ci abaa bu neexee ci yow rek jeex na. léegi nag Sall damay dugg ak yow ci làmb ji sa xarit. Balla Gaye 2 diggante ma Gris Bordeaux ku ne dégg na ko ba ba combat ba taxawee sax keroog Gris dugg na ci rajo bi dafa su ma jumul Balla dugg ci rajo bi mel ni fa lañ annoncé sax combat bi bañ na combat bi taxaw na tey ñu déggaat ci retournement de situation am ay coow hmm. delloo xaalis ak yii nii hmm. diggante Balla ak li ma gëm mooy làmb ji dina taxaw ak ku ko mënti tëgg ki koy tëgg est-ce que du doon Gaston wala daa am keneen non Gris li mu wax leer na Gris nee na dootuma bëreel Gaston leer na nañ ah. waaw te wax na ko te Gris xam naa ni kilifa la du delluwaat ginnaaw waaw ah, damaa ragal ni keneen koy tëgg mais làmb jooju dina am. mais jàpp nga keneen tëgg ko yow. waaw ah, keneen na koy mujjee tëgg mais làmb jooju moom dina am. est que Balla dina nangoo jóge ca Gaston wala. non non Omar Omar Omar moom luy defar làmb rek. Omar moom du ñaaw ci làmb. Omar li di bari yëpp déggoo ko mu wax. Omar du ci làmb. ñoom ñaar ku war a man bi yoon. Hmm? ah man de sama mbër. sama mbër laay waxal ñaan mu daan. Amar Sakho. Gris nee na da koy dóor mu daanu bu yoon. Hmm. te man problème bi mooy man ma ah. ma wax kañ lu mel ni bi mun nga ah, ah, ma jaxase ma ma mënee seet si ba noppi di ma jaxase yow jaxase ba li kay li ma wax leer na benn mbër laa am ci man kay ma wax leer na benn mbër laa am ci àddina Balla Gaye 2 mais bëgguma man lamb ji yow xarit la lamb ji bëggatuma ko waaw bëggoo daal ñu ah. bëri. ndax giri léegi daf maa waayoo. ah waaw ah, te man Balla Gaye rek laa am. dëgg la ku muy bëreel Omar laa sama waaye dañ ma doon nuroo léegi waaye man ba ma bëgg Balla Gaye dóor ko mu daanu. Eh, kon léegi ma kon léegi Omar na ko yëkkati ba ci kaw dóor <laughs> dama sonn. yàlla balaa may wax Saliou mu tàggoo. Ah. yow itam dinaa ñëw combat boobu nga ne Balla man. waaw xam nga ni Balla man loolu daa jar wax. loolu yow foo ko teg giri da di ragal daa mën bëre wala. Oh, giri desto hôpital la. yàgg nga ko boobu ba Ah, baax na. Eh, mais am nga loo fàtte de. Eh. Eh, mais loolu moom combat boobu la ñëpp soxla moom Moustapha Gueye numéro 2. wax nga dëgg sax dinaa ko man su la ma seetlu leen Guédiawaye ak ak Pikine ah, ak Fass boog. waaw ah. Gris Bordeaux Balla Gaye. Mhm. Sokocim. Mhm. Serigne Ndiaye coow laa ngi mel ni Tulle ak Malle. Abdou Diouf Gris 2. lu xew. singli nañ waa Guédiawaye de. yéen yéen a singli Guédiawaye wala Fass leen singli. yéen a singli waa Fass singli. Euh, xañ na. Hmm. adversaire dafa nekk foofu Guédiawaye waaye nag ma xamal la benn fer ah. li nga wax singli bi. Ah. waaw ma la déet de. <laughs> du ma ko weddi de. Ah. da leen a singili. ñoom est-ce que ñu waa Guédiawaye. waaye Guédiawaye. <laughs> doo fa ndékkee añee fa de déet déet. lu tax déedéet ndékki xanaa ndékki ndékki gën a ah, ah. dul neex waaw ngi noonu moo tax soo ndékkee doo xaar añ da yaakaar ñoom duñu ndékki ba añ ba reer giri fu muy ndékkee géej giri daa mën a te añ suur wala mu ndékki ba suur giri teeloon na ñëw la ndékkee fa la ndékkee fa la ndékkee <laughs> waaye bii yoon ah. yàlla combat bi taxaw rek sa diggante ak Tafa Gueye 2 kooku it def fi ne nii ndaar dimbale ma Tapha Gueye ñaar bu ngeen xeex Tapha Gueye damay moromam barki Serigne Saliou Mbacke du ma morom ah. Tapha Gueye màgget na yow yaa yaa ma xamoo Tapha Gueye ma xamal la benn affaire comme matt nga tétanos <laughs> lu tax du lekk yàpp <laughs> ay waay léegi du lekk yàpp Tapha Gueye de du lekk yàpp du lekk yàpp comme matt nga tétanos man damay lekk yàpp dinaa fekk ma may lekk yàpp waaw fekk naa la ah Paco wan de fekk Paco wan nee ma léegi xam nga lu ma Paco wan wax waaw damay nekk ba géej way ñu ma koy indil ba géejaway li la Paco def Paco wan a wax loolu kenn du Paco woon doomu ndey saali xule ay Paco loolu tax na nga yaakaar yaay daan waaye yow man la l'espagnol Tapha Gueye 2 maa ko man ah, Amérique laa demoon bi attention nee na la chicken xaw ma la nee na waaye mu ay chicken yow du dara Tapha Gueye làmmiñ ma rëy wax ratatatatatatatatuy waaye mm. ko moom a jàpp ko wax baaxul man fi mu ne nii xoolal yàpp yi ma lekk moom sonal. tubaarkàlla macha allah. waaw mais da nga leer Amérique liiru. waaye yow sant yàlla am fa ay nit ñu baax sama papa yi baabu Babou ak soxna si. ak soxnaam père Babou laa daroon këram kooku mooy mm. papay Balla Gaye 2 ak mère Assou Faye ñoom ñëpp ak Afia Mor Ndiaye waa Canal ñoom ñëpp maa leen Mor xam nga ko am na eh, eh, mais am na booy bu soxor mm-hmm. am na booy bu soxor bu ma gis ci internet bi mm-hmm. mu naan lii est-ce que or la ma ne ko yaa soxor xoolal lii or la. xoolal rek. non déet ce que or la. non xam nga ñuy ah, tax Saliou lii or or la de or la. lii du or ngay takk caq nii. xoolal. ah ma sol. te deux may la ko. de millions deux millions may ko. liiru léegi nag sa sa loxo diis na de. Ah, indi kaar bu ma cap bu ma cap sa gàttaay bu rëy. te ko koy jox. gaa yaa ngi wax ay tur. coow li bari na trop. waaw ministre bi. waaw mooy xool ku ko neex mu jox ko ko. ñuy tat ku nekk di wax naan nañ ko jox diw ak nañ ko jox diw. Ah, xoolal amuñu ci droit am nañ ci peut-être droit ku mu neex na nga posé candidat. nas dana na de candidat la mu. su ko neexee am nañ peut-être droit su ko neexee. kuy zoo technique. zoo technique xamoo ko. mbër la woon. fan la nekk mooy kuy zoo technique bi nekk parcelle. zoo technique daal mu nga Kër Massar léegi. il faut promoteur amoo soo technique nañu dimbali waaye ku jóg naan nañu am na droit laaj ko mérito na ko su ko neexee kon kon soo technique amul droit waaye ah, ah, ah, bu ma ko ndax liggéeyal na ndax Kéba benn affaire moom na fiy jàppale ay mbër Kéba yàgg na fiy jàppale ay mbër te teg nañ suñuy bët Kéba mën naa wax amul mbër man gis naa fi ay mbër yu fi am combat ba tay Kéba danañ jàppale ministre bi waaw Macky Sall ministre bi Macky Sall wax ko ko mu ngee monsieur ministre Matar Ba voilà am na fulla am na fayda te liggéey la xam tubaarikàlla macha allah Aliou Sarr gàcce ngalaama papa Aliou Sarr liggéey nga ci làmb loo xam du fay ba mukk papa Aliou Sarr félicitation liggéey nga làmb loo xam du fay ba mukk Sénégal a métti rek neex a naqaree yor ndax ñëppay de ku jiite ñu wax la waaye nag gàcce ngalaama gàcce ngalaama Matar ba ministre yaay teg fii toog yaa ko xam ku la doy ci CNG yaa ko xam yaay ministre des sports tubaarikàlla macha allah lépp mu ngi ci yow waaw yaa ngi xëpp say bët yaa ngi xool. Mamour Kandji ñu ngi koy nuyu di ko ziar président Mamour Kandji borom Mbuur ak Ndakaaru. borom Mbuur Ndakaaru. Ah, dégg naa ko sa doomu nday la sa xarit war nga maa présenté war nga ma ko présenté. maanaam ay nit. tanee. Hmm. di leen dimbali. waaw dañ lay bëgg. dëgg te dañ lay wekk. dëgg la boo tanee te doo leen dimbali. Hmm. dañ lay bañ te dañ lay yab. moom na kenn yabu ko président Mamour Kandji. maa ngi koy ñaanal yàlla. Ah, yàlla na ko yàlla doole taxaw amiin naaw léegi Omar saako mm. le lion de Guédiawaye. waaw Balla Gaye 2. Ah. liiru mooy sama mbër. ndeysaan koy fay. gis ko nii muy tàng gis nga gis ko nii muy oh. tàng tàng lu nii rek ku la gën ci koo la gën. barke xaadimul xaddiim. ni nga koy gisee nii xoola ni nga koy gisee nii mbër bu ko fi attaque mbër bu mbër bu fi attaqué liiru jaan ne la wóor ne attaqué nga Sénégal xam nga lu tax mm. liiru day xumbal nii rek géejawaay moo dee ci xolam loolu kenn du ko dindi mais barke xaadimul xaddim ñëpp la yéene jàmm man maa lox loolu xanaa xamoo nag sénégalais yi dañuy jugé nit nañ ma baal ci commentaire yeeg yooyu sax des fois nga liir nit wax dara ñu bind commenté loolu rafetul gis nga yu rafet yi bu ñëwee yu ñaaw yëpp daa war lu xew loo xam ne dama ko waroon njëkkee juum muy sunu benn grand bu dëkk géejawaay muy Daawda Seck wax nga bu baax sunu mag sunu mm. xarit mm. bëggoon géejawaay géejawaay jaral ko lu ne njaay mm. ko yàpp ci marché fiiñ bi mu bëggoon géejawaay trop trop trop trop trop Daawda Seck maa ngi koy jàll képp kuy autorité nekk géejawaay maa ngi la koy jàll di ko jàlle Balla Gaye 2